ñu ngi lancé un appel à la mooy ñëpp ku ne loo mën bu ko xeeb moo xam ay mbàjj yooyu moo xam ay yére yooyu moo xam sa 1000 francs boo ci mën a dugal ba ci mën dugal ay milliards moo xam it sa doole bi nga yor gis ñuy liggéey loo xam ne luy évacuer lu nga dem jàpp ci bu ci kenn xeeb moroomam wala moo xam it am nga place sa kër. wala am nga kër goo utilisé wul soo ci mënee fat ay nit yu ko soxla te loolu bëri na ci réew mi rawatina ñi yàlla wërsëgal tuuti alal muy vrai plan ORSEC parce que jàpp naa ni nguur gi nguuru Macky Sall gii bu dee lu bëri lu ci askan bi xaar rek doon nañ seen bopp ci Macky Sall dafa yoratul réew mi gouverner lépp a ko dépassé te ci ñëw di lancer appel particulièrement nak ak ñi nga xam suñu njaboot lañu moy les militants et les militantes de PASTEF. organisation yi mo wax ñi nga xam ne ñoo annoncé woon ni nawet yi ñu jëg ñu dëgmal dina metti trop dañu annoncé leneen lo xamné lu mata a xel la moy ni amna risque bu kawe kawe kawe kawe ñu am li ñu wax invasion agricole moy soccantal njéeréer yi njéeréer yi nga xam ne ñun bi ñu nekk xale daan nañ ko am daan nañ ko gis gëjoon na fi nag nee nañu njéeréer yi nga xam ne ñoo nekkoon booru Afrique de ak booru Kenya ñoo ngi dox di ñëw suñu boor yi te boo moytul mën nañoo yàq suñu récolte yëpp su dee ñooñu nag dañoo waxoon ni taw ren bi dina mel nii ñu gis ko buñ la annoncé lii nga war cee bàyyi xel ban matuwaay la gouvernement Macky Sall jël

ngeen laaj leen yéen presse bu ngeen leen gisee yan matuwaay lañu jël tey pour ñu bañ a xëmbalikuwaat naan mbir mi daf ñoo bett parce que nawet bi ni mu bonee ci réewu taax yi ba sonal ñu noonu la baaxee ci àll bi nit ñaa ngi bay mbay mi naat na mbay moom il faut ñu fexe ba mu doon njëriñu réew mi yan disposition la ñu jël pour que loolu bañ ñoo dal